jërë ngeen jëf am internet yi ñuy bàyyi xel fii ci Sanel TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm tey nag actualité bi li ci gën a fees xam ngeen ne mooy ponk yooyu nga xam ne président de la république euh, tegoon na ko ci jamono yi muy loo nga xamante ne nii chauffeur si ak euh, ñi nga xam ne ñooy jaay pneu doon nañ ci wax tey nag ñu ñëwaat ci Fallou Diallo ngir waxtaan ak moom Fallou Diallo nag di président union nationale des horaires Sénégal ginnaaw loolu Fallou ñu ngi leen di ah, nuyu di la baax di la di leen jëfal di ñaan suñu borom dafa leen jàmm. ginnaaw loole nag li nga xamante ne nii moo xewoon fan yi muy dogal bi nga xam ne président de la république tegoon na ko te booba ak léegi ngeen ci ñaxtu te gisuñu leen lu nga xamante ne nii def na ci. waaw xam naa dañ sant rek wax dëgg yàlla ndax xëy na xëy na étape jëloon na jëloon na ay mesures ñu ne 23 mesures jëloon na ko ñuy ñaxtu. xëy na nag réew mi ndé euh, réew mi kenn ku nekk am na sa sa sa sa doxalin ndax syndicat yi dañoo bari te bëkkuñu euh, yaakaar naa nag li li ñuy wax cadre unitaire demoon na euh, def benn négociation ak état bi ak ministre de transport ba jàpp naa ne 23 mesures ci xool ma mayoon nañ ko 6 points 6 points yooyu nag moo taxoon ñu bàyyi porte bagage ndax waxoon nañ porte bagage day deñ visite ni day deñ en plus pneu yi nga xam nii dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy importer fii di di muy ñëw. aussi euh, yaakaar na état bi teel na ci gannaaw ak yeneen mesure muy muy muy permis yoo xam ne euh, dañuy dañuy yokk date bi yooyu aussi yaakaar naa ne état bi dellu na ci gannaaw muy muy six point yan point ci yan point ngeen koy xaaraat waaw xam naa ñu koy xaaraat rek mooy lu mel ne gasoil bi ndax cher na litre bu nekk cent franc la ci la ci la ci yokk te métti na trop cheveux yi ndax comme comme euh, dindi na Versailles yi muy auto transport yi seen Versailles nañ kon yaakaar naa ne faaw mu war a wàññiwaat gasoil bi ndax dañoo war a yokk paas yi wala mu wàññi gaz bi rek mooy solution bi. Euh, kuréel ak ak li nga xamante ni mooy 5 heures du matin bi. loolu aussi horaire yi ñu ngi koy ñu ngi ñaan aussi état bi delluwaat ci gannaaw wax daal jëwoon na mesure muy muy muy muy 23 heures ba 5 te loolu jàpp naa ne aussi du solution ndax euh, boo bëggee téye oto yi 23 heures ba 5 heures matin ñu jékki-jékki génnandoo demandoo mën naa indi beneen accident euh, mën naa gën a gën a waral accident yi bari te loolu gënul. ak mm. kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb wàllu dem beeg ak dikk bi mu mel ni ànduñu mm. boobaak léegi nag uh, ñu gis ne président de la république li mu joxe woon mm. ñi nga xamante ne ñoo ëmb wàllu dem bi ak dikk bi mm-hmm. ñii dañoo jëm fii ñii jëm fii est-ce que amul intérêt boo nga xamante ne am na ñoo xamante ne moom nañ siy doxal waaw xam naa du ma ni ndax aussi dañuy bañ a wax wax loo xam ne lu ma xamul waaye daal li li li ëpp solo mooy syndicat yi ak koo moo doon ñun bu buñ sañoon ñun ñi xam xamee ñu euh, ñooy chauffeur en activité buñ sañoon ñoom ñu ànd doon benn ndax kenn ku nekk njariñal chauffeur moo ko tax a jóg kon jàpp naa ne xajaloo bi amul njariñ waaw jàpp naa daal ñoom syndicat bu buñ déggee suñu kàddu yi ñun chauffeur si ah ñu ànd doon benn booloo moo ñu gënal ñun su mënee nekk te mën naa nekk ndax kenn ku ne chauffeur nga défendre kon gisuma ah, benn yoon benn raison ah, ah, bu tax ba nga xam ni dañoo war a xàjjaloo ko daal waaw. Euh, ci kaw loolu sax ñu bëri naan chauffeur si dañoo yarawul ñi naan dañoo mënta dawal ñi naan dañoo doxalut euh, règlement yi est-ce que jàpp ne war nañoo wut ay école yoo nga xamante ne nii dañ ciy jàngale règlement yi. waaw dëgg la xam nga euh, saa su ne dama koy wax ab yar ak teggin moom ñëpp a ko war a amee bi xamante ni da ngay da ngay ci kanam lu mat juróom fukki nit wala juróom-ñaar nekk sa gannaaw ngay ngay dawal kon yar ak moom ci ñëpp ñëpp la la maanaam la war a nekk. waaye nag chauffeur bi moom jàpp naan ci mu ci moom la yee benn mooy euh, li ñu wax ni formation dëgg la war naa am ay école te loolu jàpp naa ni ñun ñun ñi euh, xam ñooy ñooy ñooy union des ñu ngi ci lool di ci dox ndax jàpp naa ni amoon nañ ay partenaires euh, yu ñu waxal yoo xam ne dañuy dañuy former ay ay ay ay xale ak si gën leen a gën leen a doxal ci ci ci ci sécurité routière ngir ñu war a xam code de la baax a baax waaw loolu yaakaar naa incha allah ci mois biir ñëw jàpp naa ne loolu danañ ko war a Euh, ci kaw loolu nag accident yi ñu bëri di wax ne li ko ci kaw loolu nag accident yi ñu bëri di wax ne mm. tali yu xat yi moo ko waral est-ce que d'accord nga si ak moom. waaw dëgg la xam nga accident yi moom état bi am na ci part chauffeur bi am na ci part borom oto bi am na ci part tali bi xat na dëgg la même boo xoolee accident bi am bëkk dem muy Louga tali bi xat na ba pare euh, fi mu nekk baaxul ci montagne la nekk ndax waxoon naa ko keroog yaakaar naa directeur de route keroog li mu wax ni 7 euh, mètres la tali bi waaw tali 7 mètres nag ñaari oto yu mag saa bu ñu ci dajee mën naa indi ab ak jaxasoo ndax oto bu nekk 2 mètres cinquante la kon boo jëlee 2 mètres 50 2 mètres 50 kooku yaakaar 5 mètres la kon kon dana dana dana des euh, benn pàcc rek mooy des la des du solo kon ñi ñaan rek ñu defal ko deux fois deux fois ba léegi oto yi su boobaa euh, du am benn oto bu jàkkaarloog moroom ja. est-ce que nga kon dana wàññi dana wàññi accident incha allah. nga yaakaar ne balaa ñu fee nekk waaw dana yàgg mais kon kon ñu xool benn solution fexe yaatal tali fekkee mu dem deux ñu fexe yaatal tali mais lépp loo xam ne day wàññi accident war nañ ci gën a góorgóorlu borom oto yi xam ne aussi euh, ñoom moom seen oto war nañoo gën a góorgóorlu di say oto yu baax baax ba euh, benn aussi chauffeur bi war naa mën a am beneen comportement ci kaw tali bi ndax am na nag ñu ñu am yar ami teggin ñu am comportement bu baax di ay di euh, nekk nekk ay ay responsable mais am na aussi chauffeur yoo xam ne wax dëgg yàlla lu leen waxal ñooma waaw wax dëgg yàlla ndax nag du ma du ma rek suñu suñu suñu côté de trop damay ndax am na ci yaru bu ñu baax mhm. ñoom am comportement mais am nañu aussi ñu ah, ñoo xam ne mel nañ neneen ñooñu nag dañuy ñaan suñu borom soppi leen ndax nag buñ sañoon aussi euh, ñëpp dañuy mel ni nu bëgg ñu mel ni mhm. waaw mu mel ni accident yi sax léegi la gën a bëri ndax bu njëkk daawuñu dégg accident yu bëri ndax mag ñi buñ daan dawal. Mhm. accident yi bëri wutoon na mu mel ni xale yi dawal léegi moo cause moo waral cause bi yëpp. wallaay du question xale sax ndax euh, nit ki mën ngaa nekk xale ba nekk ba ba pare nga nekk ah, maanaam responsable nit ki mën ngaa nekk mag te doo nekk responsable loolu si jikko lay doon rek dafa am loxoy ni moom dawal gi am am na ay xale yoo ne nii suñu borom mi leen dimbale bañ commencé dawal ba tey mosu def benn accident te ñi ngi dawal dem di ñëw te ñu am comportement lañ waaw xëy na kay eh, maanaam lee nag suñu borom mooy indi ay dogalam te doo ci mën dara waaye xanaa di gën a waxtaan suñuy suñuy suñuy suñuy ñooñ rek ñu gën a defaat ndànk ci kaw télé bi gën a xool nu ñu doxale ba suñu borom mosal nañ ci accident globalement lan waaw li ñu xaar nag mooy euh, président delluwaat xelam ci mesures yi ñu jël ba tax grève bi am dëgg la nag waxtaan nañ ba juróom amee ah, nañ juróom-benn poñ kon point yi xam ne ni moo des tam xaw a diis chauffeur ñu ñaan rek en tant que euh, président de la république mu dellu ci gannaaw. Hmm. waaw ndax nag xam na xam ne chauffeur si ak njabootam lañ donte ah, des fois ak njumte am ndax nag njumte mënta ñàkk ci doomu aadama waaye na xam ne ñëpp ak njabootam lañ. waaw bu mu déglu kenn nango sanction ah, da nga jël sanction yu sévères yi teg ko ci kaw chauffeur ba tax mu def lu mu bëggut def ndax bu ko defee ëllëg moo koy teggewaat ndax ak njabootam lañ waaw. ñu waaw jërëjëf yéen aussi maa ngi leen bu baax a baax vraiment kontaan naa ci yéen ndax saa ne yéen a ngi bëgg ah, lu leer ak ay xibaar yoo xam ne dañ ko jox askan wi jërë ngeen jëf kontaan nañ leen trop. Mm-hmm. jërë ngeen jëf am internet yi nga xam ne yéen ñu doon bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier di remercier suñu invité Fallou Fallou Diallo président de président union nationale des orels du Sénégal ñu ngi koy jaajëfal jërë ngeen jëf am internet yi nga xam ne yéen a ju bàyyi xel ci Sanel TV Sénégal. waaw